bon tey euh, dañuy sant yàlla parce que tey euh, dañoo woote ñun Sacré-Cœur 3 peut-être sax li ñu dee 10 heures ndax sama moroomu jigéen ñi xëy na heure bi ñu bëri ñu ngi nelaw mais euh, je pense que tout le monde est sensibilisé tey dañoo woote pour wane suñu naqar objectif numéro un mooy loolu naqar par rapport ak lan taxawuñu rek di ñaxtu foog naa ne Sacré-Cœur c'est rare ñu dégguñu ñu wax mais dañoo sës parce que dañoo ñëw ñun Sacré-Cœur dañoo jënd suñu ay kër. bi ñu jëndee suñu kër Sicap jaay ñu ay espace commun Sacré-Cœur aujourd'hui mooy rare zone yoo xam ne am nañ de grandes allées yoo xam ne dañ ko waroon aménager fii tey mënoon na nekk comme ay Champs-Élysées à Paris loolu moo tax ñu bëri man sama wàllu bopp bi may jënd xëy na loolu bokk na si la ma motiver mënoon naa jëndee feneen ñuy dem ba jëmmi jamono tey mu am anarchie totale ndax tey ak acte 3 de la décentralisation xam ngeen ne compétence yu bëri dañ ko transférer mairie yi mais nag malheureusement tey suñu maire yi vraiment espace yi dañ koy joxe de façon anarchique Barthélémy Diaz ñu ngi koy saluer di ko nuyu parce que ñun suñu partenaire la comité de développement local Barthélémy Diaz la mairie moo ko installé mais nag ku gis neen da nga daan nena ngi aujourd'hui li xew Sacré-Cœur 3 c'est pas normal c'est pas du tour normal ndax espace yi dañ koy joxe n'importe comment ñun dañoo étouffé tey boo jëlee VDN bi di bëgg dugg Sacré-Cœur 3 amoo foo jaar donc dafa même dafa am sax problème de sécurité publique problème de sécurité publique moo fi am tey maara day taali ambulance bu waroon ñëw wala mu am fi incendie je te pour ñu ñëw dugg day am problème vous voyez donc vraiment daal am nañu problème dëgg dëgg dëgg dëgg loolu moo tax tey ñu woote waaye nag sant nañu yàlla ba administration bi quand même suivre na suñu dossier ndax ñun dañoo légaliste comme dañoo installé officiellement dañoo bind gouverneur bi ñu bindee gouverneur gouverneur woo ñu recevoir ñu bi mu ñu recevoir mu sensible si suñu cas yónni ñu si préfet préfet recevoir ñu yónni ñu si sous préfet sous préfet nag semaine dernière rek la ñu dem ñu ngi koy sant bu baax ndax jigéen ñi lu ñu yor dañ siy farlu sous préfet des di jigéen la. bi mu ñu recevoir semaine dernière immédiatement la woo Ageroute ndax xam ngeen ne Ageroute dafa am ay espace yoo xam ne ñoo koy gérer am espace yoo xam ne mairie bee koy gérer fii ñu taxaw nag Ageroute koy gérer donc dafa woo Ageroute jox ko ne ko dem leen ak waa comité de développement local ngeen identifier zone yi nga xam ne war nañ ko déguerpir yi nga xam ne AGEROUTE moo compétent bu boobaa nag après ñu def déguerpissement kon tey loolu mooy suñu tànk ñuy sensibiliser nag opinion bi di sensibiliser non seulement euh, suñu commune suñu maire parce que nag mooy kilifa commune gi donc moom euh, wax dëgg yàlla comme comité de développement local am na foog nañ ne lépp lu ñuy joxe di def attribution ñun war nañu si boole. war nañu si boole te surtout ñoom war nañu préserver lu ñuy def rek dañu war a euh, mettre à l'esprit intérêt population yi ndax population yi leen fi teg tey maire ku ne maire Sacré-Cœur population yi la voteel pour nga nekk maire. donc loolu daal on tenait à le dire fii nag ñëpp a ngi fi imaamu jumaa yi ñu ngi fii euh, ñi imaam yaa ngi fii délégué de quartier yaa ngi fii euh, waa technique ñoom it les même problème la ñu am sinon pire ñu ngi fi waa bureau comité de développement local ñu ngi fi. jigéen ñi ñu ngi fi xale yi ñu ngi fi. waaw ngeen ñooñu ak euh, déet xam nga ñun li ma la wax rek comité de développement locale la ñu donc foog nañ ne développement dafa nekk suñu këru activité moo tax ñun Pape Saliou Thiam mi taxaw architecte la urbaniste la fii allée yi def nañ suñu programme ba pare parce que xam nañ ne nit boo ko yëkkatee suba ñeneen ñëw installé kon ñun pare nañu. dañoo defar suñu suñu programme wan nañ ko gouverneur wan nañ ko préfet wan nañ ko sous préfet AGEROUTE bii di ñëw tey ñoom am nañ ay fonds ndax président moom moo defar Promoville Promoville c'est pour gérer la gestion des espaces en ville euh, au niveau urbain am nañu ay fonds yoo xam ne ñun bu fekkee jàppale nañu si